gi nga xam ne moom moo di alali Cheikh Rafal ñu ngi wéyal liggéey yu am solo yi nga xam ne moom la ñuy def ci kër xalifa général de Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall ginnaaw bi ñu liggéeyee mur clôture bi ba noppi song mbaar mi nga xam ne moom lañ liggéey ci biir kër gi ñu fay toggee ndog yi tey jii nag ci talaata ji xëy nañ doon amal coulage bi coulage boo xam ne taalibe yu bëree bari teewee nañ ko ànd ak kuréel gi nga xam ne moo di alali Cheikh ñu liggéey liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall lépp loo xam ne nag moom la coulage bi laaj ci matuwaay jël nañ ko waaye li nga xam ne it moom moo ci jëm dara manqué wu ci muy ciment fer suuf beton lenn lu ci nekk indi nañ ko bam doy ngir liggéey bi ñu liggéey ko liggéey bu mucc ayib boo xamante ni day méngoog darajay ki ñu koy liggéeyal. kon mbokk yi ñu fa yéene ànd ak yéen fii ci kër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall ci liggéey bi nga xam ne moom la kuréel gii di alalu Cheikh Fall di liggéey ci kër gi tey jii nag ñu tolloon ci coulage bâtiment bi nga xam ne ci la ñuy toggee ndoguy koor yi Babacar mbay jawriñ moom sëñ Cheikh Jëmu Fall maa ngi leen di ziar bu baax Baye Fall di leen gërëm tey sant sama sëriñ bu baax bi sëriñ Cheikh Jëmu Fall jërëjëf sëñ Cheikh Jëmu jërëjëf sëñ Cheikh Jëmu jërëjëf sëñ Cheikh Jëmu lépp mooma du kenn lépp mooma lu ma xam lu ma mel sëñ Cheikh Jëmu léegi nag euh, muy li nga bëgg a xam mooy mbaar mi mbaar mi fii ñu toll nii tey muy premier étape bi ñu nekk nii douze mètres la nii mi ngi dem treize mooy premier mbaar mi bi nga xam ne dafa jóg 5 mètres euh, beneen beneen côté bi fare nii xam ne daleeguñ ko boobu 6 la day tiim mbaar mi ci kaw day tiim bii xam ne day am aération yoo xam ne parce que fi nga xam ne mooy 6 mètres yi foofu la ñuy taale ci nii moo léegi day jóg 6 mètres tiim mbaar ba xam ne léegi suñ taalee saxar si mooy génn ci aération yi di jàll xam ne ñii ci biir mbaar mi saxar si du leen benn yoon noonu lañ ko jàppoo su dee li nga xam ne nag mbaam fi li ma xamagul ci li nga xam ne moo ci dem mënu ma ko sax wax mënu ndax nii rek poto bu nekk quarante la la yaatoo vingt mooy mooy mooy mooy kii bi vingt sur quarante moom moom la poto yi toll bi mi ngi nekk un mètre si nga xam ne moom moom lañ moom liggéeyam mbaam kii bi dem na un cinquante fondation bi ñu nag fi ne lañ toll mais bawuñu lan nag ci biir kër gi waaw li nga xam ne daal mooy mooy fii nga nekk tey ci biir kër gi muy mbaar mi muy magasin yi muy néeg yi sa ginnaaw muy néegu soxna yi bâtiment soxna yi yëpp daal lañ jël ne moom war nañ ko mën a liggéey incha allah fii koor bala koor gi pare ci daal lañ nekk foofu lañ taxaw ñi nga xam ne nag ñooy ñooy ñooy ñooy alal Cheikh Ibra Fall ni nga xam ne moo war kër gi nii kër gi mel nii ñoom ñoo ko def waaye nag ñoom ñi ngi yaatal ñëpp di woo ñëpp bawuñu kenn ñoom daal suñu sañ ñëpp dañuy ñëw bokk ñoom liggéey bi ndax Cheikh Ibra Cheikh Rafaal lañ ñor ci Cheikh nekk ñoom ñooy alali Cheikh Rafaal suñ sooyoon nag képp koo xam ne ki yaa fi ñëwal dugg ci alali Cheikh Rafaal ñu liggéeyal sëriñ bi li mu bëgg ñun daal ñu ngi woote bawuñu kenn bawuñu mag ndaw ñëpp rek. waaw waaw semence bi fi nii yaakaar naa fi nii dinaa dem euh, parce que sama premier gazage 4 tonnes laa def 4 tonnes xaar bi deuxième bi maa ngi gazewaat 2 euh, tonnes te ni ma ko mën a waxee 10 tonnes bi day mat moom. waaw 10 tonnes bi dara dana dal bi moom lay jël fi ne 20 mètres xeet ma yoroon def naa ko ci waaw des na. jërëjëfati Jëmbu jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmbu jërëjëfati Serigne Cheikh Jëmbu Serigne Cheikh Fall Jëmbu yàlla na fi yàggati wér ci barke Maam Cheikh Ibrahima mbokki murid yi mbokki taalibe yi mbokki daal ayeli Cheikh Rafal maa leen di siyaare baax baax di siyaare mboolem koo xam ne yaa ngi ci daal ayeli Cheikh Rafal tey. ñaanal Serigne Cheikh Fall jëm mu yàgg fi loolu te wér di ko dool ñaanalaat baax a baax mooy ma xam ne mooy moom daal Aliou Cheikh Fall mel na nag tey jii ñu ngi fii ci kër Serigne Cheikh jëmb ne ci kuule bi mbaar mi nga xam ni ci la ñuy togg yi euh, mel na korob bi fi ñëwee commencé woon liggéey bi ñu nekkoon ci miir bi bi miir bi jeex ñu julloon ci mbaar mi ñu togg ndogu yi yàlla dogal na nag tey ji ci traité Cheikh Fall ji ñu koy kuule ànd koog mbokki taalibe yëpp nag. Euh, ànd koog mbokki àll Cheikh Rafal yëpp waaye ànd koog mbokki Baye Fall yëpp loolu nag ñu ngi sant Cheikh bu baax ci dimbali gi ñuy dimbali bi ñu tàmbalee ci liggéey mu fekk ñu fa ak dooleem ja muy suñu Cheikh Fall jëmb ak kàttanam gi ba yàlla def ñu agsi ci Koulé ñu ngi ñaan nag ci dooleem ak kàttanam mu dimbali ñu ba àggale lépp ba jox ko ah, liggéey bi nag di liggéey boo xam ne mu yëpp la war Baye Fall yëpp la war waaye nag rawatina na Cheikh Rafal képp koo xam ne yow wér nga ne àll Cheikh nga yaa xam foo mën a ne liggéey bi am nga ci wàll ñu ngi la ci woo nag woog jariñu ndax damay wax ne woowuñ kenn ngir sàkku ndimbal ndimbal ci kenn lañ koy sàkkoo mooy Serigne Cheikh Fall jëmb dañuy woo ngir jariñu jariñu gi mooy lu ci waay def Cheikh Fall dana la ko delloo bu fële la ko kon ñu ngi ci woo ñëpp di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di la ñaan yow Serigne Fallou euh, sa site bii di Assalaamy TV Cheikh Fall yokkal la ko ba fa nga bëgg mu àgg fa mu àgg fa ci darajee Cheikh Raya jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi leen di siyaar baax te jiital ci nuyoo goog siyaar bi Assalaamy TV moom mi nga xam ne si ne kat moom diine ak lislaam rek a ko ñor tamit borom ngor tey wër fu ngor ne dikk fii ci ëttub maam Cheikh Ibrahima Fall kër Serigne Cheikh Jëmb Moustapha Fall kon noo ngi tàmbalee suñu kàddu nag di sant bu baax a baax di ñaanal Serigne bi mu yàgg fi ti wér Serigne Cheikh Jëmb yàgg fi lool te ànd ak te yàgg noo jiite nu yàgg ko lëggeel barkeb maam Cheikh Ibrahima Ah, li waral woote bi ak nuyoo bi nag mooy mbaar mii nga xam si ne fi lañuy ñuy togg ndoguy maam Cheikh Ibrahima Fall yi te dañoo war a xam ne kat képp ku am jàmm Sëriñ Bamba waaye ku ko am ba man cee jëriñu maam Cheikh Ibrahima Fall moom mi ni wan ki nga xam si ne moo mat a am ba nu xam Ahmadou tey ba ñëpp am ci Ahmadou dara tey kon nan jóg di ko sant moo waral ñuy woote waaye ni ko Seydina Omar sekk nooru dare ni waxee rek woote bi sekk woon ci ndimbal ndax soxlawul ndimbalal kenn lu dul ndimbalal sëriñ bi ndax kat damay wax ne xéwal gaa ngi nii tuuru na te dootul jeexati ku lekk naan ba man di war a santati maam Cheikh Ibrahima Fall mi nu may jàmm te wan nu jàmm kon nanu jóg liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall fa yéene am ngërëmam ndax moom kat da daan joxe ay dërëmam ngir bëggi ngërëm te xam nañ ne kat ngërëmam yooye moom la ñuy dabu ngir bëgg ami ngërëm kon dërëm yu bari yi nag amul benn njariñ ndax boo nelawee fàtte boo dee ñàkk waaye loo jox sëriñ bi loola fàttewoo ko te doo ko ñàkk te xam ne ab denc la te li neex ba neex mooy di denc di dénk koo xam ne ku mën a denc la ndax kat jëf ji du réer du lakk du maxe du naax saay lu ay jëf yaa ko moom ñaq du réer borom kon nanu xam ne kat balaas boo ko tiimoon ren ba déwén di wax du tax mu génne poids waaye boo ca tegee dara rek mu feeñal jëf kon nañu xam ne jëf ji fi mbir mi ne liggéey bi nag mi ngi nii gaal gi teer na gaal nag bu teeree nga teg ci dara bu jéggee da jël la nga ca tegoon waaye boo ci tegul dara bu gaa yi dee jël lañ ca tegoon yow doo mën a jël dara kon nanu xam ne lëggéeyal Cheikh Ibrahima Fall moo fi des ndax daa lëggéeyal ki mat a lëggéeyal ndax Serigne ku dul boromam waaye Cheikh Ibrahima tëlutoon ku dul Serigne Bamba Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo taloon ku dul Serigne Bamba nag ñu nit moom rek la ñu tal te xam ne kat jaajëf ji moom ku Cheikh Ibrahima ne jaajëf am nga jaajëfi borom Tuubaa am nga jaajëfi yàlla sa borom subhanahu wa taala kon nanu ci góorgóorlu bu baax a baax loolu moo waral woote bi lëggéey baa ngi nii dañu door a door nag ndax mbaar maa ngi nii yëkkati nañ ba toll nañ ci kuule benn xaaj bi des na beneen xaaj ba la ca gannaaw te keesu soxna yii ci la bokk moom it dafa war a jóg ndax sëriñ bii kat teelut ku dul sëriñ Muntaxa Xaadimal Moustapha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba maamam ni tëlunu kenn ku dul sëriñ seex Jëmb Fall mustafaa mii ku xiif nag mënta xaar kuy dammoog nit ku sottal la mën a àndal te sëriñ bi ko sottal la ku def dara rek am dara waaye ku deful dara doo am dara kon nañ def fi nga xam ne daraa ngi fi ndax fii dara nekkat ku fi fi def ko ne da nga fi jëlee dara te da nga am dara te foo dem doon fa dara kon nañu xam ne jëf ci jëfukaay ba barab bi nag jëfukaay la muy ëttub maam Cheikh Ibrahima Fall ndax damay wax ne sant yëpp a ngi ci sa ëtt ndax yaa jëf li tax sant yëpp dajee ci sa ëtt kon kenn ku nekk lay tax nga am dara ak lay tax nga mën dara da ngay daroo ku mat a darool te koo darool mu mën a mu mat a darool kon nañu xam ne ne fii la mbir mi ne jëf daal nuróowul ak i wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ah, di ak ziar bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Sidi Mboup Fall xalif général des Baye Fall ah, ah, baax a baax waa alalu Cheikh Ibrahima Fall Mouride bu mag ba ñoom ñi xam ne ñoom ñoo taxawee liggéeyub Serigne Cheikh Fall jëm fi ci Pàlleen Mbacké Bawal ñaari bay Fall mu yeesal gi nga xam ne ñu ngi koy yeesal këram gi ndeysaan ci yeesal gu am gu am solo lool nag ñiy sant ñëpp rek di ci ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey muy waa daara gi ngi ne baax fan bu gudd wér gi yaram waaye xéwal yu bari loon ko remal borom Touba ci doole euh, jàlli batul maraax waaye sunu njiit Seydina Omar Seck Nourou Darayni euh, général Mouride bu mag ba Mame Ibrahima Fall nangu ndigal waaye jàmbaar Serigne Cheikh Fall jëmb euh, ci njiit gu rafet gi ñu ngi koy ñaanal baax baax moom it ak mboolem ñu ñu ànd rek yàgg fi loolu te ànd ak wér di santaat bu baax nag ci coulage bi nga xamante ni euh, Assalaamy TV ñoo fi teew tey fii ci euh, taxawaayu Alaaji Fallou Sil suñu xarit si soppee euh, macha allah bëgg nañ ci lool nag coulage bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci Paleen Mbacké ba Paleen Mbacké Bawol muy mbaarum ndogu yi nga xam ne ah Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall moom moo koy euh, fi lay toggee ndog ma Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar tey ëllëg ñu xëyoon nag tey jii ci talaata gi talaata nay neex Fall talaata Sidi Ibrahim Fall ki tax ñi tal ko ah, fas yéene nag daal di kule lii di mbaar mi waaye mbokki taalibee ko ñoom ñoom ñëpp mel na ne wis nañ ñi nga xamante nii noonu lañ ko bëggee woon ci coulage bi dara nag manqué lépp a ngi fi lépp a ngi majji majji kon nag nañu soñaat bu baax a baax a baax suñu bopp waaye di soñu mboole mbokki taalibe yi rawatina nag mbokki soxna yi comme ni ma ko waxee woon man soxna yi moon ñoom laa fi euh, nekkal euh, soxna yi euh, ñoom laa ñoom laa nekkal fii ci Paleen Mbacke Bawal ñaari Baye Fall ci coulage bi kon nag euh, nañu fexe ba rek bu ñu kenn man nag ci liggéeyub euh, Sidi Birahim Fall sunu waaja murit bu mag ba nañu daal di takkaat laxasaay yi ñi nga xam ne ñoo yor natt nañ teggi natt yi def ko ci liggéeyu sëriñ bi te xam ne euh, liggéey bi moom wax dëgg yàlla dafa war a dox ndax buñ jàppee dana dox buñ jàpp dana dox waaye nañ fexe ba jàpp ci liggéeyub sëriñ bi ndax dana tax suñu borom ci mbaaxu sëriñ Touba xasida yi bàyyee ñu sag ba ndax lépp moom sëriñ bi la kon nag mbaar mi moom xam ne coulage bi tey incha allah rabbi dina pare waaye nañ xam ne su paree tamit songaat nañ yeneen liggéey ndax mboolem loo xam ne dafa wër kër gi ak li ne ci biir kër gi dañ ko fas yéene yeesal ndax bâtiment soxna yi nga xamante ah, koo war a daaneel war koo defaraat moom a mucc ayib ndax sëriñ bi moom ñu koy faral di waxee rek jamono junee ah, saa ah, kon moo tax nag ñun taalibe yi fas yéene koo tal nag daal di koy defar këram gi ba mu mucc ayib defar ko biir biti waaye monte fi muy énergie solaire ak yajay aju yëpp euh, lépp rek ngir dàkk ci euh, bëgguk Serigne Cheikh Fall jëmb boromi ngërëm ku koy liggéeyal dana tax ami ngërëm kon jaajëf jaajëfa ci waa loolu Cheikh Ibrahima Fall murit bu mag bi waaye ñi ngi soñ ñëpp nag mboolem daahira xam nekk ci réew mi nekk ci biti réew ñoom ñëpp rek ñu ngi leen ci woo ci liggéey bi te xam ne liggéey bi ñëpp lañ ko defal waaw alali Cheikh Ibrahima Fall nag ñoom la ko suñu borom subhanahu baaxoo ci mbaaxuk Serigne Touba xasida euh, jagleel ngir ñu liggéey liggéey boobu waaye ñëpp ñëpp ñëpp lañu ko defal ndax ñëpp xaj nañ ci kon nañu fexe ba euh, mbooleem mbokki taalibe yi rek euh, bu leen bii raw ndax liggéey bi bonus la euh, ci mbooleem jullit yi ndax kenn ku ne xam na ne joxe addiya fa mu gën a gaawe mooy nga jaar ko ci Sidi Ibrahim Fall sunu waaja murit bu mag ba kon nañu gaaw baax a baax daal yónnee addee ji addee gi nag képp koo xamante am nga pas-pas ak yéene joxe sa addee ci liggéey bi rek ah, boo ko jaaree ci numéro orange money wala numéro wéef yi wala transfert bu mënti doon ah, dinañ ci jot ci numéro 78 534 89 11 78 534 89 11 orange money la waaye wéef la ci turu Omar Seck. wala ba tey jaaree ko ci euh, turu Diagne Cissé ci 77 649 95 88. 77 649 95 88 moom tamit Orange Money la waaye weef la ci turu euh, Diagne Cissé euh, ñëpp nag ñu ngi leen di sant porte parole bi Serigne Babacar Koreya euh, Jalibatul Maraax féetike diwaanu Ndakaaru ak mboolem ñaaf jur ak juróom-ñett yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi ak yi nekk ci ci réew ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu baax a di leen ziar di leen ñaanal jàmm te xam ne liggéey bi noonu rek la buñ nangu kenn man man ñu ci liggéey bi Sidi Ibrahima Fall bi ndax ni ko Serigne Cheikh Fall jëm waxe woon rek moom moo ci nekk nee woon nañu euh, téngu leen rek man may yenu su ngeen di xàll dee leen xàll lu yaat ndax lu ngeen xàll dinaa leen ca fekk si waaye ba tey euh, waxoon dimbali sama bopp ba àdduna sépp xam ne dimbali naa leen waaye képp ko ànd ak yéen liggéey bi tamit lu mu bëgg euh, tey ak ëllëg dina ko yomb waaye texe ngeen na ko àdduna ak alaxira moo tax nag waa daara gi daal Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag waa daara Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla nañ fi bokk yàgg lool ci daal di engagé li nga xam moom mooy euh, këram gi te bu ñu noppee tamit mboolem foo xamante ni rek euh, sëriñ bi am na fa euh, kër rek incha allahu rabbi wala amu ko fa danañ ko ko fa fas yéene taxawal ndax Sidi Ibrahima Fall dafa këram dafa war a wër ci réew mi ak ci biti réew alaaji Fallou Sil bu Assalaamy TV foofa ca diwaanu a Mbacké canta ngërëm ñel na la waaye canta ngërëm ñel na mboolem ndeysaan ñi nga xam ne ñi ngi topp jotaay bi fii ci Assalaamy TV ak personnel Assalaamy TV ñoom ñëpp nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ñaanal saxaadatu daarayni waaye di leen ñaanal bu baax a baax ah, saxaadatan wa barakatan wa xaafiyatan fi daarayni ah, ci barkeb sali ala salihin wa huwal muslihon ah, sadihon sidru salatan tuslihon ci darajey murid bu mag ba Mame Cheikh Ibrahima Fall